asalaamaaleykum wa rahmatulah Alé Thiam le responsable Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Njaañ. ndaje mi tey li ko soxal mooy dañoo àndoon ak population wu Njaañ ci cadre politique àndoon ak euh, président Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar depuis douze ans ñu ànd ak moom di liggéey ba nga xam ne président dem na ba nga xam ne douze ans jeex na ñu war a amaat beneen kandidaa Benno Bokk Yaakaar ñu war a wowaan na population wu Njaañ tey toog waxtaan ak ñoom. ci élection bi nga xam ne ci lañ jëm te jamono bu ne population wu Njaañ ñoo ñu daan jàppale ci élection bañ di ci am ndam loolu moo waraloon tey ñu woowaat population bi waxtaan ceeg ñoom wala tàmbaliwaat liggéey bi fii ci Njaañ. xam nga liggéey boo gis rek am na lu koy waral euh, ñun population wu Njaañ dañoo am loo xam ne état buñ àndal dafa am lu dëkk bi di soxla ndax ñun nag amuñu benn itte bu dul ittee Njaañ ittee Njaañ moo di euh, am nañ yu bëree bëri yoo xam ay manquement yoo xam ne dañ koy. laaj état te état moo ñu ko war a jox kon nag képp ku ñuy àndal ku ne war nañ laa wax li nga xam ne mooy besoin yu Njaañ mooy tawati Njaañ loolu mooy si taxawaay. waaw xam nga besoin yi euh, jamono yi euh, bi nga xamante ne président Macky Sall ma ngi fi amoon nañ fi deuxième forage ci PUDC bi projet deuxième forage ba nga xam ne demoon nañ ba wan ñu bañ wax leen fi ñu koy implanté bañ nekkoon fi ak euh, ki nga xam ne moo jiitoon PUDC muy Cheikh Diop. ñu ñëw fii xool def seen analise yëpp ba pare mais boobaak léegi gisaguñ ci benn avancement boo xam ne am na kon nag jàpp nañ ne bu fekkente ni am na ku ñuy war a amaat relation war nañ ko wax besoin yi nga xam ne moom am ci dëkk bi lu mel ne ay piste production amoon nañ ko dëgg la bëriwul ci région de luga mais nag Njaañ dañ ko amoon des avant amoon nañ quinze kilomètres projet boo xamante ne bii ne moo war a fii ba patar Naar mooy piste production amoon nañ quatre kilomètres yoo xam ne ci biir Njaañ la nekk yoo xam ne goudron la mënaguñ ci woon am dara loolu nag dañ koy bëgg a yeesalaat maanaam gënuñ ko jëmalewaat ci kanam itam ngir ñu mën ñu cee jàppale. nga boo xoolee jamono indépendance ba léegi la Njaañ am forage forage wu boo xamante ne bii ne château bi en fer la ken naaneetu ko kon yoon la ñu mën koo mën a changer te population bi nekk ci dëkk ak li fi nekkoon mën na koo se kon yoon la ñu am forage benn forage bu defee une heure de temps for château bi dafay jeex da nga toogaat ay quelques heures. muy doog a mën a feesaat te population bi actuellement yi dafa dem ba daf ko triplé kon deuxième forage da ci daal di jaadu ci dëkk bi. non xam nga da nga naan Njaañ amul goudron ndax tali bu fi jaar jàll la mais nag dañuy gis yeneen communes yu gën a tuuti Njaañ dañuy ñu am ci biir dëkk bi ñun actuellement nii marché hebdomadaire bi nga xam ne gannaaw Daara Jolof Caameen Njaañ mooy ëpp ci région de luga ci marché bu fi nekk. mais dañuy am problème mu sax marché bu la indi ku la camion bu la indil marchandise ci biir marché bi. fi nga xamante ne bii ne fa la ñuy baykat yi di yóbbu seen gerte pour ñu mën a jël gerte gi rek yóbbu ko ci usine bi problème lay doon parce que amuñu yoon boo xam ne mën na faa dem loolu yëpp nag dañ ko dañ ko soxla. waaw loolu de du ma ne du ma ne la waaw du ma ne la déet mais nag xaw na koo nuru mais nag jàpp nañ ne la woon dana woneeku ndax boo seetee population bu fi dajale tey nga xam ne ñooy électeurs yi nekk ci dëkk bi xam nañ ba xam kan mooy kan bu ëllëgatee te besoin bi ñuy wax besoin population wu Njaañ la du besoin boo xamante ne ci aale ci am responsable politique ñun bu dee ñun donga mën nañoo bari bañ a bari yenn besoin ci état mais nag dafa am lu nekk suñu gannaaw la nekk suñu gannaaw nag moom la ñuy waxal muy njaañ ñun ku ñu ku jàpp njaañ rek ñu jàpp ko ku téye njaañ ñu téye ko ndax amuñu lu dul njaañ ndax guddi guddi njaañ la ñuy fanaani kon nag dañuy jàpp ne Paris sax njaañ moo ko war a mën a dàq suñu bëgg-bëgg ñun loolu mooy suñu suñu taxawaay. message bi mooy candidat Benno Bokk Yaakaar dañu bëgg mu def ni président Macky Sall defoon 2012 mi wër réew mi fenn fu ci ne dafa teg tànkam. ñu wax ko doléance yi dëkk ba mu wax nan lay àndee ak ñoom mu ànd ko ci ak ñoom ba nga xam ne 12 ans yi nga xamante ni def nañ ko ci durant yi nga xam ne mi ngi ànd ak Benno Bokk Yaakaar benn jafe-jafe mosuñu ko ci am ndax nag ñun coalition lañ nekke boo seetee fi ñu toog tey du question que ne ki fii àndal ki fi nekk responsable APR moo fi nekk Benno Bokk Yaakaar gi yëpp la waa PS ñi ngi fi euh, leeral euh, mu dañ fada yeesal mi ngi fi Euh, Moustapha Niass mi ngi fi kon ñun waxewuñu ci kaddu APR rek dañuy wax ci kaddu bennoo Bokk Yaakaar te ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo ci gën a nekk ndaw ñu jox ñu kaddu gi waaye ñoom lañ ci man wala nañ ko ci wax sax day dépassé ñoom man bu ma taxoon di wax. ñu bëgg bi mooy avant que sax muy faluwaat war naa ñëw fii ci dëkk bi xam lan mooy njaañ njaañ dëkk la boo xam ne képp kuy wut am réew war ngaa mën a xam fan la njaañ nekk. war ngaa xam tam lan mooy besoin wu Njaañ nga jàppale leen ci ñu jàppale la ci liñ nekk ndax nag du question nga ne carte la ñu am am nañ baatin itam ci saayir ak baatin ndax dañu am ay kilifa yu fi nekk mu di waa kër maam Ndiaga Fatim Diagne ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare bu ñu amee fitu taxaw di wax ñoom ñoo tax kon na bëgg nañ président Amadou Ba mu ñëw Njaañ toog ñu wax ko lan mooy besoin wu Njaañ mu wax ñu nan la bëgg ñu ànd ko moom ñu ànd ko ak moom loolu mooy suñuy kàddu. ma bokk yaakaar Adja Penda Ndiaye dëkk Njaañu Njaga on conseil territorial maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baal àq di leen balu àq di nuyu jigéen ñi fi toog sunu nawle yu jigéen yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare góor ñi fi toog ah di siyaare njabootu maam Njaga Fatim Jaañ boobu ba sëñ Amar Diagne yal na yàgg te gudd fan lool ak sëñ Njaga ñoom waaw wàllu jigéen ñi mën naa cee wax lu baree bari ndax jigéen ñi dañoo sonn procès yi ci réew mi amuñu ci a ah, xaalis bi ñuy joxe joxuñu leen ci mu njaañu maam jaga Fatim gi te kenn ëpp leen électeur kenn dàqu leen a wote di bennoo bokk yaakaar bu loolu jàllee ndox mu neex amatuñu ko dañuy root ay bidong mënatunoo naan kër goo dem dana root fukki bidong ak juróom jamonoy Macky Sall nag daa amoon nanu ndax bi nga xamee ne indi nañ forage am Njaañ am ami jafe-jafe dafa woo Baye bàcc ne ko ñëwal wañu xaalis bu takk jox ko mu xëcc def ca nu am ndox mu doy mu dellu xëccaat beneen filtre bi nu am ndox mu doy yaare at yii nag falaas dali ron dañuy rootaat ndox mu neex ku ci ëmb sax sa doom dana tuuru ndax ndox mu wex ku ci ëmb sa doom dana tuuru ndax ndox mu wex kon nag nu bëgg ci ndox mu sell mi ñuy defal Sénégal ñu defal ko jigéen ñi Njaañ ndax sonn nañu dee nañu metti na may woo may woo may woo uh, Fat Diané Fat Diané Guèye laay jëkk a woo tekke Ndey Sali Diop mi ànd ak Amadou Ba tekke tekke Mbaaco Njaxasoo sama xarit sama genn wàll ñuy ànd ak Amadou Ba Adja Penda Ndiaye jigéen ñi lay waxal ci Njaañ na ngeen nu fekk fii ci Njaañ ànd ak Amadou Ba sunu président Benno Bokk Yaakaar yal na ko yàlla def amunu amunu ko poste poste sante la nu am bëgg nañu bu mag bi santé santé santé santé bi nattoon nañu ko damaa xamul lu ko baare waaye nattoon nañu ko ba góor gu baax ga ca àjjana waxoon ci démence ba bëgg koo am waaye nag xamuñu lu ko kale kooku it war nañ cee dimbali nit ñi ndax wér gi yarama fi ne boo wérut bëggoo dara mm-hmm. te dem bee yéeg bi sonn nan bu nu demee ci poste santé bi bu nu munta faj mu dagg nu dem disque bu kokki mbaa ñu yóbbu nu Louga loolu yi da la nu nekkee noo ngi ñaan nag Amadou Ba yal na ko yàlla jox réew mi ba mu jàppale nu ba nu am santé santé bu mag bi nga xam ne góor ñi danañu faju ndaw ñi faju mag ñi faju lii mooy sunu bëgg-bëgg te nag fonkal nu sunu aale mi Benno Bokk Yaakaar mu ànd ak ñii mu àndal mu ànd ñii mu àndal ànd ak njabootu maam Ndiaga Fatim gii nu ne wéew Amadou Ba na ñëw njaaj nag dijunu dijunu wax ko suñu bëgg-bëgg wax ko suñuy doléance lii lañ doon wax lii lañu naqarlu lii lañu tawat mel na ne nun bokkatuñu ci réew mi ndax kenn yëgaluñu kenn waxuñu te noo fi gën man ci réew mi ëpp ci électeur dàq fee dem dàq fee wax kon nag war nañ ñu cee boole jërë ngeen jëf. La cérémonie qui nous a réunis a pour objectif de d'abord motiver nos nos militants bon aussi de leur de leur au courant que nous venons de discuter en ce qui concerne le comité directeur de la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de Ndiagne pour prendre la décision solennelle de soutenir euh, le candidat que le président de la République, M. Macky Sall, nous a indexé, c'est-à-dire Amadou Ba. Euh, c'est l'objectif euh, de la, de, de, la mobilisation. Effectivement, comme vous venez de l'entendre euh, en, en, ce qui concerne la version Wolof, euh, Ndiagne est une commune euh, très grande qui s'est développée. Bon, je pense que plus de 10 mille âmes se réveillent dans, dans, dans, dans cette commune. Donc nous avons des besoins, des doléances, à savoir un second forage, bon, un, un, centre de santé si, si, possible aussi, mais aussi avoir aussi d'autres euh, pistes de production parce que au niveau d'Indiagne, nous avons... Euh, la, la, nous avons Sanch, nous avons Patar, mais nous avons aussi un marché, un grand marché, un Louma à Tchalen, Donc euh, nous, nous voulons que ces, tous ces villages soient, soient, reliés par des pistes de production pour pouvoir permettre aux cultivateurs d'amener leurs produits au niveau du marché. Parce que nous avons vu au niveau des autres communes, nous, à Ndiagne, nous n'avons pas, nous avons pas de piste de production. Nous avons une route principale qui, traverse la, qui traverse commune, c'est-à-dire euh, Warak euh, jusqu'à Ndoyen. Donc nous voulons des pistes de, des pistes de production, aux, des routes, des routes au niveau de la commune d'Andiagne. Effectivement, effectivement, parce que le, le, forage que nous avons tombe souvent en panne et l'eau qu'il qu qu pompe ne, suffit pas euh, à la population, à la capacité ne, ne suffit pas à la population qui se réveille au niveau de la commune de Ndiagne. Donc, nous voulons un second forage. D'ailleurs, nous avons fait des études et nous avons, nous, on nous d'ailleurs montré là où on peut implanter même un second forage, mais toujours en vain. Donc, nous voulons que si le candidat de la coalition Benno Bokoyakar, M. Euh, Amadouba, prend le pouvoir, essayer d'exécuter tous ces projets au niveau de la commune de Effectivement, effectivement C'est-à-dire, euh, nous, nous, nous, nous, conseillons au Premier ministre et candidat M. Amadouba de venir à Ndiagne comme le président Macky Sall l'avait fait en 2011. Parce que le président Macky Sall n'a pas attendu d'arriver au pouvoir pour venir à Ndiagne. Il, a, il, il, il, est venu ici, on a fait des, des séances de travail pour, pour, pour dégager les priorités de la commune. C'est ce que nous souhaitons aussi pour le candidat Amadouba, parce que nous voulons mouiller, mouiller le moyen pour qu'il gagne En tout cas, on est mobilisé, on est déjà sur le terrain pour pouvoir convaincre les électeurs pour qu'ils gagnent ces élections au premier tour. Et nous sommes derrière notre leader Aletiam et j'en suis sûr et certain que nous gagnerons ces élections.